inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ubbil xët mu njëkk groupe de médias bi tribune yëglekaay xëy fasal juróomi nit ñu ñàkk seen bakkan laa ilaha illa talibaa ngi rey waaw juróomi nit yoo xamante ni ca oto ga ñu nekkoon de moo mbëkkante ak beneen daamar ca yoonu kër ma jabal la xewee ñooñee sax seen i néew jot nañ ko rawale kër docteur El Hadji Ibrahima Niass ca Kaolack laataa ñu leen di jëbal suñu borom libération yi ne kaay xëy ci it ñi nga xamante ni dañ leen delloo seen borom bokk na ci nag xale yi ñuy ci biir ndakaaru tey teguñ ko fenn jël leen libération yi ne kaay descente musculée l' enceinte piste ñoom ñi de ñoo wàccoon ci mbedd yi niki gaaw ji ca nag enceinte piste bale ngir dafa ab sesetal ak nimeku waaye de ñaar fukk ak ñaar ci ay xale yoo xam te ay jaam lañ leen def ñoom ñi de bu doon toon gendarmerie du ñu génn ca safara gañ doon tund bokk na ci ñoo xamante ni ñu ngi fekk baax ci Guinée Bissau Guinée Conakry te ñoom ñi le de bu juróom benn waxtu jotee suba cuy lañ leen daan teg ci kaw tali bi ba guddi di leen saraxaloo ak wutlooy koppar loo ci mën dégg mooy jamono ji nag jafe yu metti lañ doon dund di tëdd ci ay carton di fanaan ci mbedd yi si doy waar di dund lu metti moo tax it am na ci koo xamante ni dana daj lu metti de di kenn ci seen sëriñ daan koy def garde à vue ndax moom mee sax jàpp nañ ni moo doon def lu ñu mel ci nag it ñi nga xamante def ko ci loxo njur la ci libération kay xëy nañ ko biral waa gendarmerie gàcce ginnaaw opération booba nga xamante ni amal nañ ko ci seen piste bi teg ci ay larme am ñoo xam ne yor nañ ngànnaay drogue ba moom ne danu ma lii lépp di gàcce wàllum politique yi lan fa yéene kaay ñëw ci élection bokk moomali local yi nga xamante ni ñu ngi ko dëgmal ci biir benn bokk yaakaar de jeex na lool ça chauffe à benno noonu la ko yëglekaay bi xamle li ko waral tribune yéene kaay groupe des médias bi ne waaw dëgg la bu ñu moytu sax daañ jëm ci classe bu metti moo tax élection locale yi jax na lool ca teel ndax xoolal ma diggante yi Adama fay ak Macky Sall de mel na ne fi mu nekk nii làmbaay ngay bëgg a ñaaw ci lépp lu jëm ci waajtaayu élection locale yi waaw lii de la Adama Faye wax gorom bi waaw lii la ko wax moom monsieur le président trop de pouvoir tue le pouvoir nguur gu ëpp day rey nguur waaw waxi waxi gorom la di rakk Marième Faye Sall mi soxnaas njiitu réew mi ne day sa liberté bu ëpp moo la may nga dem bay jënd ab avion déet waay yaa ko wax sax gorom nga bu la neexee wax ko waaw juróom benn fukk ci milliards yoo xamante ni di ko jëndee avion loolee nag sa liberté bopp la ko may mooy wax de Adama Faye nay leer waaw ci yëglekaay bi di tribune yéenekaay bokk na ci ba tey wàllum yoon mu ne vote justice est sélective ay way seeteet waaw nee na ko yow yoon bii di justice si xew bu Sénégal gii dafa am jeng ku ma am ndey ku ma amul ndey moom mooy wax ba tey de nay leer ba Adama Faye la waaw rax ci dolli nous ne sommes pas un royaume nekkuñu réew moo xam dafa am buur cey goro baay wax de Adama Faye nay leer waaw mu ne nag ci tribune yéen kaay je serai candidat sans votre autorisation yaa ko sañ ci benn bokk yaakaar gi ñu naan kenn ku ne day xaar njiitu réew président Macky Sall waaw ci taxaw na tem ne nag moom day sikaab boobee liberté kenn du ko ko jiitu dana ko jël ndax xale ya tabb nañ ko ca bopp ba waaw Bougazelli jamono jojee nag nar a janloog Aliou Sall bennoo tamit ca Podor naka noone waaw moo tax ñu ne verde local musclé nar naa tàng jëpp ca Podor féppee jex-jex yi élection yi daal nañ ko duppee ci luy baax rek ruq yëppee baax baax yi ci mën dégg ma ngay baax ca diwaanu Ndar Géej ci biir jongante waaw ca bët gànnaar aha kay ne moom mi de sama candidature bi dara mënu koo teggi te askan bi ñoo am seen fulay bopp di tànn ka leen neex ngir mu jiite leen waaye beneen mindaaful mënul tax ñëw jiite leen xanaa da ngaa a wax bokk ñi naan dañuy xaar njiit réew mi tabbu kenn wala choisir kenn ci coalition bi damaa laajte dong ci biir l'observateur waaw ma des ci yëglekaay boobee ak ñi nekkoon ay jëwriñ nekkoon ni membre ci gouvernement bi laaj bi samp l'observateur di woon ay jëwriñ yu nekkoon nag ci jamono njiitu réew mi jëwriñ yooyu sax kenn mënu cee génn Amadou Ba moo jërewoon wàllum finance waaw koppar ya gafak ak nguuru Sénégal Le Quotidien yëglekaay bi ma jëmal jaañ bi ne waaw diggante Mbaye Ndiaye ak Amadou Ba diggante ba léegi neex na de waaw ca Parcelles Assainies relation yooyu kay assainir nañ ko 2024 bokkut critique yéen kaay ne ngi Savané nee na troisième mandat di net munu fee am sax te loolee deesu ko nangu moom président Macky Sall du ko fi amee les éco yéen kaay sax jox kàddu président Macky Sall waaw nee ñii de nee na du fi amee wàllum ngóor jigéen homosexualité président Macky Sall nee na ah teg maa ngi fii ci Sénégal jàpp leen duñ ko fi masa daganal laa si ni kaay gën a daganal kàddu yi njiitu réew moom ne waaw ne xel sax daa mënul nangu borom ñaari tur yi di mbirum ngóor jigéen waaw waaye loolu dama ko dul nangu fii ci Sénégal la wax il est impensable que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal di kàddu yi président Macky Sall kon nag xanaa xel man naa dal moom Sall ngar lantorog Bourguéré Kor Marième Faye daal di signé persister ci lu nu mel kon bokk li la wax ba li ngeen dégg jàngeen jëf ñu yendoo ak jàmm jàngeen YouTube Tawfekh Production ngeen bés cloche bi bokk ci programme bi national international